ba jële lépp luy nooteel ak jaay doole jëmale ko ci jigéen ñi rawatina jànq ji mu doon xeex bu réewum Sénégal bu boobee ba léegi te ci biile ndaje nag ñu fas yéene cee xayma jéego yi nga xamante ni jot nañ ko cee def li ciy rëq-rëq ak li nga xamante ni war nañ ko boole ci xeex bi mu doon xayma bu ñuy door ca atum 2017 ba Sénégal tàmbale plan d'action jëmale ko 2021. bu ndoxatal mettal ci àdduna bi yëpp la am te li ñuy seetlu mooy li ci ëpp góor yi ñoo koy teg. jigéen ñi def nañ ci jéego yu am solo boo jëlee wàllu yoon xayma bi ci mujj bu fës mooy loi bi ñuy wax numéro 20 20 05 bi nga xam ne nii moo jàpp ne siif jigéen ak sàkku xale loolu kirim la beneen pàcc bi ñuy waxtaanee ci biile ndaje moo di fësal bu baax dispositif bi nga xamante ni samp nañ ko ngir képp ku yaakaar ni dañ lay bundu xataal wala di la jaay doole tey nga di jigéen nga mën faa woote mu di wallu allo 116 ñu taxawula la. à travers ministère de la famille ñu lancé plateforme bu am solo. que xale wala jigéen bu am métital buñ ko teg wala jafe-jafe wala menace wala bundu xataal fu mu mun a amee mun na woote ci numéro boobu wàllu allo 116. fépp fu nekk ci Sénégal guddeeg bëccëg subaak ngoon bu wootee am na équipe bu nekk ci ministère bu ko mën a jël déglu ko dalal ko orienté ko. Sénégal li mu xaatim ci ay convention bëri na lépp doore ca conférence bu Beijing ci atum 1995 ngir xeex lépp luy ak ak yelleefu jigéen ak gone yi waaye mu mel ni ci atum 2023 lañ doon bañ démb ba tax ñuy xeex tey la fi gën a ne.